man Momar Diagne laa tudd maay chef d'état-major marine nationale tey nag dañu euh, dañoo dajale kàngam yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci géej gi ndax ñu mun a génne ay solution yoo xam ne ay solution yu mun a aar géej gi la ku nekk dafay wax li nga xam ne am na ko ci expérience am na ko stratégie ñu teg ko ci kaw table bi ndax ñu mën a génne ay solution yoo xam ne ku nekk bu demee tamit dina mun a jël solution boobu adapté ko ci ndox yi nga xam ne moom lay gérer. bu ngeen seetloo ci biir su région bi marine sénégalaise moom nga gàcce ngaalaama ndax euh, réew yu bëri yoo xam ne ñoo ñu wër ñun ñoo leen di patrouiller ñun ñoo ñooy sécuriser seen seen ay ndox ndax xam nañ ne géej amul frontière lu jógee fole tamit boo ci taxawul dina yegg si ci yow euh, di ngeen gis euh, incha allah. Euh, mercredi dinañ leen defal fii ay démonstration yi ndaw yoo xam ne ku gis lu ndaw li di nga xam ne am na lu mag lu nekk ci gannaawam. ay at ngi nii ñoo ngi liggéey ci loolu ci ay moyens ci ay recrutement de personnel ci ay formation de personnel ci ay entraînement euh, ci ay coopération ak euh, suñu ay partenaires yi fànn yëpp ñu ngi ciy taxaw. te fi ñu toll nii daanaka bu ngeen gisee réew bitim réew yi yëpp nangu fee teew déplacer seen xaalis bàyyi seen ay activité dañoo gis ni fulla ak fayda taxaw na fi. marine sénégalaise taxaw na taxawaay bu dëgër boo xam ne incha allah euh, population bi mun nañu mun nañu mun nañu nelaw euh, tranquillement